salaamaaleykum équipe matinale di leen nuy nag ku nekk sa tur ak sa sant tey nag dañuy commencer rek seen revue de presse people ak ki nga xam ni moo nekk Abiba moo ne woon mën na ko nag te dina ko def moom it nag jamono ji bokk na ci di nga xamante ne ni am nañu seen bac ba tax mu dugal benn vidéo nag ci biir Instagram bi ngir wane ni daal mbégte rek la am jamono jii nii donte ay magam ak yeneen star tamit nekkoon nañu fi tey mënuñoo woon boole jàng ak étude xale yi daal wane nañ ne daal ñoom bokk ñoog ñoom ndam rek ci kanam félicitations à toi ñu ñëw ci ki nga xam ne mooy Pamela Anderson jamono jii nag moom rëccu rek lay def nag bu baax ci ñaaw ñaawteef yi nga xam ne nii wax na ko ki nga xam ni mooy Adil yi te it ñoom ñaar nag dañu doon génn ci lu yàggul dara waaye ba ñu bàyyi bàyyantewee nag jiiñ na ko ay façon violence yoo xamante ne nii moom daan na ko ko def te it daan dugg nag ci réseaux sociaux yi ci page Instagram moom nag di ko fa bind te di wax rek li nga xamante ne nii ñoom ñaar mës nañ koo sekk seen àdduna jamono ji Pamela Anderson mu ngi koy rëccu bu baax ki nga xam ne nii nag moom la def ñaawteef boobu muy Adil Rami nekk défenseur champion du monde français te jamono ji nag ay problème la am ak waa club de football am waaye daal kenn xamul ba tey lu tax soppi jikko boobu noonu daal di am wayteen si ñu jeexale seen revue de presse people ak ki nga xam ne mooy Nicki Minaj maa fi toogoon nag wax ko ni day dem Arabie Saoudite nag daal di fay fas yéene def benn concert le 18 juillet mu nekk nag benn festival boo xamante ne ni at bu ne dañ ko fay koy def waaye Nicki Minaj bi defaroon valisam ba pare nag ne day dem dem ba nag daa mujjee fomb ndax Nicki Minaj nag nekkete doful te it xoolaat na xelam bu baax xam na ni nag foofu noonu mu jëm la muy xeex moom mi Nicki Minaj di wàllum lesbienne bisexuelle ak borom ñaari tur yi dëkk ba mu jëm nag ñoom buñ fa demee dañ leen di faat te moom mi sax bu fa demoon mën na faa ñàkk bakkanam ndax waa ONG The Human Rights Foundation ñoom woowoon nañ ko nag le 5 juillet ko rek ne ko concert xelam waaye Nicki na dafa lankoon naka daal di joxe dat bi nga xamante ne nii ca la war a dem te féministe bi muy xeex naka ne moom loolu la ñoom naka jamono jii dañ koo mere ba futtu ndax nee nañ naka mënul nekk féministe ba pare di simeeku yaramu leen ci kaw seen bi mel ni objet sexuel te xam nañ ni sax ne demam Arabie Saoudite mësu la antu mu nekkoon seen revue de presse people ma la di jox dig daje ba suba. merci Rahma eh ben oui à l'image de saint Petit galère, il faut que nous jàng d'abord avant de nous di compétir l'eau.